di am mbégte nak tew ci wadan gi nga xamni serigne bi def ño xamal fi mu teg bi te waxna ko nak wadan defar na bopam ba nopi ñun dañuy dox ay jéego rek and ci di ci wut barke mais li defar waadaan mu ngi ci waadaan ba noppi loolu li ñu gëm la lépp luñ ci def rek dañuy jàpp ni dañuy ñëw wut ci barke ñun maanaam ñun lay waadaan di defal euh, ñëw fii nag teewal fii président de la république président Macky nga xam ni mu ngi ci wàccaay dem ma sakku ci jëm yu tedd fi tok ñu ñaanal ko ñaanal bu baax ki nga xamni mom la suñu borom tek ci suñu bop rew jaarale ko ci koolute Sénégalais di basiru jomay Fay yalla may ko wër donc monsieur le préfet ñi ngi leen di remercier baaxa baax ci jàppale gi ngeen jàppale ndax tey jii lépp lu ñu fi def mu yoon engagement yi ñu jëloon ci CLD ak CRD bi yaakaar naa commission d'organisation bi danañ ci wax bu ñu jëlee par danañ ko leeral yaakaar naa lépp mat na te yéen yéen ñu jàppale ndax mënuñu dara sans yéen di duñ mën a def dara ndax wala njaay nee na peccum liir bu neexee ndey jaatee ci wagg ya kon nag commune bu mënee tey jii bay def yéen administration bi nga xam ne yéen a yor occupé la hiérarchie ñu jàppale ñu ngi leen di nuyu fii ci ëttub sëriñ Ahmadou Tasrif Sougou ci bisub ñaar fukki fan ci weeru koor di ñaar fukki guddi ak benn mu nekk bis boo xam ne sëriñ Touba Xaadimu Rasuul moo ko joxoon sëriñ Ahmadou Tasrif moom sëriñ Jéeri di ñetteeli doomu sëriñ Jéeri waxoon ko ci ne ko Ahmadou mu ne ko Mbàkke mu ne ko bis bi defal naa la ci loo xam ne mbindeef duut la mën a yàqal ak ku ànd ak yow ahmadou mu ne ko mbàkke mu ne ko bis bi defal naa la ci loo xam ne ku yëkkati sarax di ko joxe xelam du la daj ak ku ànd ak yow bis bi ahmadou fu mu la fekkati na ko teral ci teraanga jooju nga xam ne sëriñ ahmadou tasrif la ko sëriñ Touba joxoon ci bis boobu wa ma kaana rabbuka liyuhlikal qura bi zulmin illa wa ahluha muslihun nit ñi li fek ñi nga am nit ku baax ku nekk ci seen biir yàlla du leen masa alak Sénégal yàlla lu ko masa alak ndax sëñ Muntaxa mi ngi ci suñu biir nekk ak ñun moom borom bis bi lañ ko defal na fi di nuyu sëñ Sugu mi nga xam ne mooy Serigne nga xamne tanef la moom itam bokku na ci ni afu an rijalun sadaqu ma haudullah alayhi ku jeexal dundam yeb ci mbirum suñu borom la ndax señ Bamba dana wax ne lepp lu way di yëkkati nar ma koo jox so gisee señ Mamma wala nga gis señ Amet nang ko ko jox xamna na ci yam kott dana wax fi ne ndogo bu jotee fu way dem ci kër yi rek na fa ndogo ndax ñepp sama njabot lañ kon sëñ Bamba moom moo njaboote ñépp mu ne nag ci bis bii nga xam ne nag sëriñ Touba moo ci joxe xéewal yooyu yëpp te jox ko see Ahmadou Tasrif ci koor gi sëñ tubaa mu jëwoor ci njaareem dël ka ci lim ka ci dël mu indi ko fii nag ci waadaan ngir réew mi yëpp jariñu ci njariñ loolu nag muy sëñ Touba léppam di njariñ nafon rek la te laay ngi amu ci mu tibbal sëñ Ahmadou Tassif ci njariñ loolu mu indi ko fii ci waadan njariñ loolu nag moo tax ñu daje fi daje googu ñu fi daje nag ñi fi toog di ay autorité ñu ngi nii bu ñu waxee préfet su préfet monsieur le ak mbooleem service yi nekk ci département bi ak ci région bi yépp teew nañ mooy sëñ bi amut genn kàddu gu muy jëmale ci autorité yi lu dul sant leen bu baax gërëm leen ak ñaanal leen ndax lu ñu xam ci bëgg-bëggam danañ ci taxaw te buñ ko xamut danañ dàkk ak bëgg-bëggam firnde ne loolu tey mbooleem service yi am ci département bi te yépp ñu soxla woon ko ñun comité d'organisation bi te njaboot gi yëpp nekk ci ñu waxtaan jël ay waxtaan yu am solo wax dëgg yàlla li ñu doon waxtaanee bu dee 100 points la mën ngaa wax ne 99 points yëpp def nañ ko te ci fi ñu ko defee dafa xat lool ndax jamonoy élection la te ñëpp a xam ne élection administrative administration moom moo ko yoree muy préfet su préfet ak ñëpp. waaye loolu yàqul ci li ñu waroon def yépp au contraire tax na sax ba liñ doon def lépp dañ ko yokk